maam bu sa jaara nuy na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta maam maaram waaw màggal gi moom neex na trop ñuy ñaanal soxna jaara yàlla yokk ay leeram di ñaanal sëñ Muntaqa mu yàgg fi ca wér ñu ñaan képp daal ko màggal si bu déwénee yàlla na nga màggal si si barkeb sëñ Muntaqa Mbàkke man nag Dame Sylla waaw dëgg la waaw man nag ren maa doog a ñëw euh, euh, Porokhane bi ñëw siyaare waaye wax dëgg yàlla euh, yàgg naa yéene waaye nag nit naa soxna si ku ma woogu doo ñëw ren la ma woo doog a ñëw nag waaye nag bi ma ñëwee bi ma duggee Porokhane am na yëg-yëg bu ma gis sama bopp ak lu bëri daal yëg naa ko gis naa ko maa ngi ñëw ci teen bi nii mu yóbbaale sama xarit su ma waa daayira ñu bokkal daayira yëpp lu ñu barkeeloo. waaw soxna jaara moom xam nga ñun jigéen ñi dañuy jéem rek waaye mënuñu koo roy ndax fi mu jaar ñu fee jaar ndax tey ji képp jigéen gu ne borom kër ne woon teel ma sàkkar yi mu fanaanee taw yow doo ko def mënuñu koo roy waaye dañuy jéem ñoo ngi jëm daal di pëseefu. teen bi étape bu am solo ndax ten bi toon maam jaara la maanaam ay mbóot ay xiwal yu bëri daal ay kéemaan moo ci nekk daal maanaam ay mbóot la daal ay secret yoo xamante maanaam waaw am ci biteen bi waaw soxna jaara moom soxna si maanaam wax ci dana xaw a yéeme ndax soxna si maanaam foo ko natt romb na ko te suñu xam-xam bëriwul wax ci dana xaw a jafe trop waaye maanaam soxna si daal maanaam ku yéeme la daal ku yéeme la maanaam soxna yi tamit ñii ñëw poroxaan ak ñi des ci kër yi war na jàng ci soxna jaara bu baax a baax a baax ñëw gi am na solo waaye nag jéem fa mu tegoon tànkam nga jéem a yëkkati sa tànk teg fa lu am solo la ñu roy parce que maanaam bu jàppee foofu maanaam lu bëri mu ngi am ci biir néegu sëy ak problème ci biir jigéen lu bëri dina saafaro ndax am na lu mu liggéey loo xam ne maanaam tey da mën nañ ci defa suñu àddina ak suñu àllaaxira ñoo ngi dégg naan soxna jaaram dafa liggéeyal Serigne Touba ndaxte liggéey bi mu ko liggéeyal moo waral lii mu am mu am ko tey ndax da képp ku sa borom kër ne la teel saa kër doo ko ñemee képp sa borom kër ne la taalal sa gaa tàngalal ma café nga ne fu may def sama yére yi xam nga ñemewoo ko yaa ngi dégg képp ku soxna jaar képp koo xam ne si ne nag moom bëgg ngaa roy soxna jaara munoo muy man muy sama morom maam bu sa jaara ay dëkkandoom njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta mam maaram